waaw doon membre fondateur bu FIT mooy front pour l'inclusion et la transparence des élections parce que lii ñu gis aussi euh, Macky Sall di bëgg jéem euh, il faut ñu taxaw ci am ci taxawaay bu wër duñ ci taxawantu nag du doon lu ñuy taxawantu wala lu ñuy làmbatu déedéet taxawaay bu wër lañ ciy am pour que ay élections am te ñëpp bokk ci ndax lii ñu gis muy def euh, xam nañu ko ay politiciens lañu décision de justice génn na ne nañ jox parrainage Ousmane Sonko. mu teg ci tànkam euh, tey ñu lu ñu musul a gis fenn Sénat ñu ne dans trois mois la élection ñu dàq ñëpp loolu kenn musu ko gis protocole CEDEAO nee na waroo laal dara ci ay élection six mois avant élection yi moom ña nga xam ne ñoo war a saytu élection yi mu dàq leen am ca ñamu tànn ñoo xam ne ñëpp xam nañ ne ca parteem la ñu bokk te dañu ne commission national électorale autonome mooy maanaam doo far fenn kon loolu it fit jàpp na ne dinañ dem attaquer décret bi fañ ko war a attaquer ci yoon pour que ña nga xam ne ñooy bokk ci Sénat bi doon ñoo xam ne ñi euh, amuñ parparloo amuñu voilà looloo tax nag ñu war a am taxawaay bi taxawaay bi ñu am tey euh, pour fexe ba suñuy élection euh, ñu jaar yoon parce que yi bu jaaree yoon candidat wu Macky Sall du dem deuxième tour xam na loolu candidat am bu élection yi jaaree yoon mënta dem deuxième tour voilà kon loolu taxawaay bu wër lañ ci am woo ci sénégalais yi nag woo ci jeunesse bi Euh, jeunesse bi aussi ñu gën leen a encourager ñu des fii Sénégal ñu ànd xeexandoo li ñu war a xeexandoo changer suñu réew indi beneen de indiwaat démocratie fexe ba espoir amaat ci réew mi ñu teg justice bi ci yoon ku nekk sa àq ñu jox la ko sa yelleef ñu jox la ko ñu libérer aussi plus de mille détenus yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi y compris d'ailleurs Ousmane Sonko donc loolu mooy li nga xam ne euh, mooy taxawaayu fit euh, élection yi parenage bi dinañ ko ànd saytandoo ko ndax nag duñu toog rek ñu naan la indil sa clé defal ci ordinateur bi yow li nga yor yëpp ay doublon la loolu kenn du ko ko nangul ngeen benn commission boo xamante ni ay expert ngeen ci nar a àndal pour que mu mën a saytu li nga xam ne moom mooy wàllu euh, dépôt li nga xam ne mooy parrainage waaw waaw waaw parce que duñ doo rek joxe sa machine ñu ne la non yow am nga du nga li nga indi yëpp doublon la nga rek toog di voilà du ñu def loolu dañuy exiger suñu experts yi suñu informaticiens yi ñu ñëw toog ak ministère de l'intérieur ñu xam logiciel de contrôle boobu la na ci nekk bu ko defee euh, vraiment euh, ñu teg élection bi ci yoon looloo ñu tax a ñëw euh, gis ngeen ne pratiquement leader opposition bi yëpp a ngi fi ñi nga xam ne nag dañu am taxawaay voilà ni ko suñu voilà Cheikh Tidiane waxe mooy vraiment taxaw tepp pour teg élection yi ci yoon voilà loolu daal moo taxoon ñu ñu bokk ci te nag defe naa ne foofu la ñu sénégalais yi di xaar ci jamono ji ñu toll parce que ni ñu bëgg a saax-saaxee démocratie bi kon di ko seetaan ñun ay démocrate la ñu convaincu président Macky Sall démocratie moo tax ñu fal ko kon nag mënuñoo toll ba fii mu naan damay ut yeneen i pexe pour sama candidat bi nga xam ne bu jaaree yoon du dem deuxième tour loolu ñu toog di ko seetaan kooku moom du ko def te ñu ngi ci woo sénégalais yëpp jeunesse bi ak les femmes pour ñu am ci taxawaay bi war. est-ce que taxawaay bi tamit tardé wul. taxawaay bi tardé wul parce que amoon nañ fi F24 F24 ginnaaw yàlla moo tax président Macky Sall bàyyi troisième mandat yéen xam ngeen xam ngeen loolu kon euh, jamono ji mu nga xam ne ci lañ ko taxawale aussi euh, doon na jamono joo xam ne ji am na solo parce que ñoo nga jëm nag ca décision ba euh, te ni ngeen ko gisee leader yi fi nekk yëpp daanaka vraiment am nañ taxawaay ba ca war ba noppi nag gis ngeen la xew ca Benno Bokk Yaakaar ga voilà foofa moom sabar gu tas la def naa ne amuñu moral amuñu moo tax président bi di leen utal nag yoon yu ñu jaar par force mais loolu mënu fee amee euh, loolu tax fit taxaw ñu nit ñu ñëw bokk ci am ci taxawaay bi war. merci alors euh, gis ngeen li nga xamante ni moom moo xew fii tey euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy leaderu opposition bi ñoom ñëpp ñoo woote benn union boo xamante ni dañu nar a tenir loolu ngir dem li nga xam ne moom mooy présidentielle 2024 yi ñu jëm muy le 25 février prochain gis plan d'action yi nga xamante ni ñoom fas yéene nañ ko émettre li nga xam ne moom moo ci njëkk mooy dinañu dem ñoom opposition bi yëpp dem jaale ji famille yi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci émigration clandestine bi beneen bi nga xamante ni aussi teg nañ ko mooy commission électorale bi nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene euh, saytu li nga xam ne moom mooy euh, euh, dépôt wu candidat yi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi le 17 aussi dinañ dem ci li nga xamante ni moom mooy marche pacifique euh, pour les quarante six euh, départements du pays donc mu nekk en résumé euh, front boo xamante ni daal dañu taxaw pour taxaw temm ak li nga xam ne moom la gouvernement bi di doxalee te ànduñu si ñu mën a taxaw faire face loolu moo nekkoon en résumé li nga xam ne moom lañ fi jëlee di jaajëfal libaas mi jàppoon ci côté tic bi ji leen jox rendez-vous à très ngeen jëf.